yu bi bu Boucher gis nañ lamb ji tey mystique bi dañ ceen see sérieux trop trop trop trop trop lan moo waral concentration tey lamb ji ci mystique waaw parce que ñi ñu doon bëreel ci la ci mystique lañ tegoon lamb ji ak léegi nii xam nga lamb ji nag ñun liggéey nañ ci ku gis saacee sa xam ne dafa liggéey kuñ daw rañaan la nga laaw ñu rañaan la egg la fiñ la egg nga def rotation ba dëpp ko kat appi loolu c'est à saluer loolu moom champion rek a koy def fi ñu egg Sa Thiès ak punkal bi Reug Reug ni mu toll ak punkal mi mu doon ak champion bi mu doon ñu koy jiñ mbapat di ko jiñ làmb mu daw rañaan Sa Thiès ba egg ko fi mu ko egg Sa Thiès def rotation daw jàpp bopp bi dëpp ko kat appi loolu si asam amoon dit lamb ji dañ cee boolewul woon wax tey bi ngeen ma gisee ci làmb ji tiitoo leen bi ngeen ma gisee lépp lu ma doon defal Balla Gaye defal naa ko mm-hmm. waaw parce que làmb ji moo laajul woon wax mm-hmm. ku ma ci laaj ma noppi parce que dañoo am ci lu ñu jógee ñu war a jëf ñu war a leeral loolu rek la mais fépp fu ñu doon dugal Balla Gaye ak fépp lu ñu ko doon defal rek barke Cheikhul Khadim defal nañ ko Sa Thiès loolu yàlla jàppale ñu nag dimbali ñu ñu am ndam ginnaaw bi sénégalais yëpp gisee ni euh, Sa moo daan ci li nga xamante ne moo di quatre appuis mais dafa am critique bu ñu koy critiquer lu tax mu teel a bàyyi. non non xanaa da ngeen bëggoon mu rey ko mais làmb quatre appuis la ñu wax li gën a dee quatre appuis ñu ngi koy jox mbër décision arbitre yëkkati sa loxo décision arbitre ñu ngi koy joxee victoire bu ñu amee quatre appuis duñ jël loolu bëggoon yëpp écran yaa ngi tàkk lépp ngi tàkk adduna bi yëpp gis nañ ko atte yàlla moo gën bu xaaruñu seen dee de ay xaar seen yi ñu ay victoire hmm, pour lan. kat ab yàlla rek a xam ñun li ñu bëggoon mooy daal yàlla defal nañu ko xaaruñu ci CNG xaaruñu ci kenn sénégalais yëpp gis nañu réew mi gis nañu àdduna gis nañu yàlla àtte na te loolu moo ëpp solo. mais mais Boussa coow li coow li amoon ci làmb ji avant làmb ji dernière signature gis nañ ni demee na. yooyu yëpp sama yoon naw ci gisoo ma ci gisoo ci Balla Gaye gisoo ci yooyu yëpp gisuñu ci nekkuñ ci suñu yoon naw ci ñun lu ñu ñoroon mooy ndam te indi nañ ko. mais seen diggante ak waa Thiar bi combat bi kamba combat dafa am enjeu. non làmb du làmb du raw. Balla Gaye motloo ci àdduna. làmb du raw. Balla Gaye Yékini ci àdduna. làmb du raw. Balla Gaye Gris doo ci àdduna. combat amoon na jeex na tey. Euh, daan nañ ak manière. xool naa sànq sa statut nga am loo xamante ni yaa Sénégalais yëpp ko naqarlu ci li nga xamante ne aussi CNG liggéey bi ñuy liggéey ci làmb écrasant bi nga xamante ni chaque jour ñu kaas ko ngir ñu taal ko pour erreur yu mel nii bañ di am ci làmb loolu aussi critique la boo xamante ne ñu ngi koy joxeñ waa CNG. CNG ñoo yàq stade bi. bu doon ñoom stade bi mel nii. stade bi coqati nañ ko stade 32 milliards lañ wax. mais mu mel nii saa se sale. stade bi comme marinière. Hmm? billaay foo romb pax la. kenn xamul lii lan la. Hmm. ndax lan ñàkk vigilant. Hmm. CNG écran plat boobu cent mille ngay fay pour ñu taal ko. 300000 pour essence. léegi am nga écran plat. àdduna bépp a ngi gis. balaa ngaa def dara doo wax ñu xool ko mm-hmm. ban ban sport moo amul vaar ci àdduna làmb xool ko même bu fekkee vaar amul arbitre bi na xulli bëtam yi xanaa du xool mm-hmm. xanaa dafa kataraak na xool lii leer na mm-hmm. na xool ba pare yëgit lu ko Sa Thiès mais bi ñoom jàpp mais Sa soo gisee demul c'est normal li mu def mooy yoon Sa balaa muy bëriwaat deuxième bëri bi découragé na pare na ci moom xam na ni daan na. dañ leen waxoon làmb ji benn song la xanaa jël benn song la. Ah. làmb ji amul benn ñaari song. Balla Gaye Sa Thiès bu demoon ñibbi dañ koy aj même dinañ ko jox victoire bi xam nga victoire leer na nañ ko ko jox. Mhm. mais dañ koy aj après naan ay respect amul respect indi fi kii seen seen léegi après coowul aj boobu noonu la ñuy jël teg ko ci kaw victoire bi. Mhm. loolu lañ leen mayul. moo tax ñu ñëwaat bëree ak découragement kii pare nañ man bi saa te daanee premier site laa génn stade bi man non jeex man ak Balla Gaye ci lañ ñëw ñu ne dañuy dem parce que pare nañ. mais Balla naka la dundee li nga xamante ne aussi mooy làmb ji ndax ñu bëri dañ doon wax Reug Reug su paree ci Sa ci Balla la jëm. mais loolu moo doon rêve am mais heureusement mais gis nga Sa Thiès bi mu duggee si làmb ji. waaw génnaat làmb ji. waaw. kan la doon gasal. kam la doon gàttal magam bi mu koy defal li nga koy defal ci buntu bi daf na ko tey lu la neex defal parce que Serigne Bamba Balla def na ko lu la neex defal man moom ak yàlla ñoo fa taxawoon fi nekkoon man moom ak yàlla ak Balla Gaye dee mu ne ko lu la neex defal tey yaa moom sa bis nu la neex bëreel incha allah yaay daan saa ca àndaat ak moom ñu dugg ci biir stade bi naka nga jàngatee ñu bëri ne Sa Thiès dafa euh, joué ci combat bi benn jeu boo xamante ni tey képp kuy kilifa diine euh, ñaanal nga ko ndam ndax supporteram bi nga xamante ne chrétien la ne bis boo amee ndab rek ma dugg ci l'islam waa loolu tam c'est à saluer sant yàlla kilifa diine yëpp ñaan nañ ci parce que l'islam moom du moroomu dara ci àdduna ñaan nañ ci xam nga diine moom ku ci bëgg dugg rek dañ koy ñaan te incha allah xale bi di ngeen ko gis dinañ ko def benn conférence de presse mu taxaw tuub ndax moo ko waxoon te dina ko def incha allah rabbi waaw. Aliou borom Thiaroy ne woon na bis bu Sa Thiès daane rek rek mu lekk xaj. waaw. waaw. waaw. <laughs> waaye nag ba tey jàllee nag mu des yow. bu se non non li mu waroon def. Sadio faale ko. waaw parce que ñun indiwuñ coow. Sa Thiès xam nga mënoon na ko dóor foofu. du ko def doo yor sa ndam ñëw di xeex waa yow. Sa Thiès xam luñ ko wax ñu tëj ko fii ci saal bee. balaa muy dem wax ak moom yàpp ko. Mm. bul xuloo bul xeex. eh duñ sa moroom Sadio Deme ñoo yem ñoo di yàq làmb ci xeexul xulóol du dóor kenn doo indi sa ndam di xeex. bi muy dem da ku koy wax loolu. Sadio di xale bu ndaw Sadio Sadio sañoon naa taxaw di bañ a bëree. Sadio sañoon naa taxaw di lootoo. Sadio bu mënu woon daan rek mu tekki ngeen moom tey. Sadio sañoon naa taxaw di di pour la muy lootoo Sadio di xale bu ndaw bari doole nekk champion nga naan lan ku dul rek rek Sadio sa la mën. barke alxuraanul karim booy lapp lapp yëpp ci làmb ji saa si sa leen mën day juum rek te juum yooyu moo jeex ci làmbam waaw. nekk nii nag euh, gis nañ euh, li nga xamante ne aussi ginnaaw làmb ji adversaire yi ñàkk ngeen xalaat seen digganteeg Sa Thiès. waaw léegi Franc ak kii. Franc ak kii euh, Forza dañuy xa Reug Reug da leen di xaar. ku daan comme Franc bu daanee faraa Reug Reug làmb bu neex la Forza Reug dañuy bëree làmb ju neex la ñoom catégorie boobu Sa day dugg ci Gris Bordeaux Eumeu Sène Tapha Tine egg na Bombardier egg na Sa Thiès sañ ca kaw di ah fu mu ne Tapha pare barki démb amul avance Sa pare tey amul avance mais làmb ju neex la nag loolu nga ñëwee dugal Sa Thiès ba suba